salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte ñëw ak yéen ci entretien bu particulier ndax gan bu ñu am fii mu ngi tudd Mati Fall nekk journaliste journaliste on le devient à vie euh, temps yi nga jógee ci dëkk tubaab yi nga nekk particulièrement en France ñëw fii ci Sénégal bi nga ñëwee nag ñëw ci période boo xam ne période bu xaw compliqué la ci dundu Ndakaaru Njaay parce que bari na dëkk yi bari fii ci dëkku taax dans la banlieue ndox mi xaw leen sonal bi nga ñëwee am loo def spontanément dinañ ci ñëw Mati ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal di la dalal jàmm fii ci Sénégal. baax a baax a baax Kandé voilà di la nuyu bu baax di rafetlu aussi sa liggéey di rafetlu seen liggéey waa yéen waa Sénégal donc c'est avec euh, fierté que je suis là euh, mbir mi xatoon na lool mais xam nga yow moom voilà donc fii sama kër la donc maa ngi nuyu euh, seen ñi leen di suivre ñëpp effectivement je suis venue ci période boo xamante ne période où on va dire hiverne donc voilà c'est l'hivernage et ak inondation yi voilà donc dama ñëw dem seeti ji également fa nga xam ne foofu laa cosaano foofu laa dëkk foofu laa nekk et puis euh, gis na c'est très difficile c'est très difficile pour euh, c'est difficile partout mais surtout la banlieue donc euh, c'était spontané en fait premier jour bi ma ñëwee jóge aéroport quand j'ai vu le les quartiers xam nga fa laa doon jaar ba ma amee am vingt ans fa laa doon jaar dem di dem école ànd ak sama papa c'est c'était on va dire dama amoon la chair de dama amoon su ma daw sama yaram dafa daw parce que c'est dur quoi et puis délabrement yenn quartier yi ndox mi nangu yenn kër yi euh, man voilà ma ne qu'est-ce qu'il faut faire en fait parce que man j'avais un projet côté social ak sama sama structure on va en parler plus tard euh, Diaspora bi TV pour pouvoir def benn link entre les immigrés qui veulent rentrer définitivement comment les financer et cetera comment jàppale jeunes yi nekk fii au Sénégal pour que ñu bañ a def immigration irrégulière mais après je me suis dit pourquoi pas ñu xool quartier bi alors qu'est-ce qui s'est passé vendredi passé il a plus le lendemain ma woote euh, mairie ba woo maire bi woo ses collaborateurs ba tey. mairie Thiaroye foofu parce que ci mairie ba foofu Diamaguène Diacksao saw cetera am na mairie am na côté boo xam te ne waa Bennoo ñoo ko gagné am na côté boo xam ne waa Yewwi voilà donc euh, fi ma dëkk en tout cas euh, maire bi c'est il est de Yewwi xam nga nag maak ñoom mooy loolu mais bon voilà donc euh, ces collaborateurs quand même euh, voilà ils ont été très courtois et ils ont voulu bien faire mais ba léegi j'ai pas eu les motopompes da ma def sama live j'ai j'ai poussé un, coup de gueule <laughs> comme ni ngeen ko xamee rek xa nga ma damaa mun ci ay ñaxtu <laughs> noonu nag noonu euh, voilà on m'a appelé euh, un homme d'affaires du nom de Doro Gueye PDG Doro xam naa dégg ngeen ko noonu il a tout de suite réagi ma matti il faut vraiment faire quelque chose noonu si la ci guddi gi si la commandé ay motopompe le lendemain ñu indi motopompe yi et puis voilà donc ñu daal di ko installé tout on a fait une petite voilà petite cérémonie pour voilà sama tonton yeeg suñu tata yeeg yooyu et après voilà euh, la veille j'ai j'ai discuté avec les femmes euh, ñu ne ma depuis 2014 ñu ngi daw ci autorité yi ñu ngi daw ci nit ñi pour ñu jàppale ñu te dañ lay dikk et y rien ba léegi depuis 2014 Euh, le GIE compte une centaine de femmes kenn jàppalewu leen en fait on les a oubliées ma ne leen man de lu ñu mën a def mooy ñu xool une vingtaine de femmes on a discuté euh, somme bi ñu ma wax ñu compter on peut une vingtaine de femmes euh, les aider financièrement donc seconde étape bi loolu la mooy financer une on va dire 23 femmes dinañ def le suivi képp ku ñu jox xaalis ñu dem xool lan nga euh, def comme métier lan nga def ci xaalis bi euh, on va faire le bilan six mois après léegi nag pour mun a financer d' autres femmes également mais vraiment c' est c' est de manière spontanée. non vraiment c' est sans arrière-pensée. sans arrière-pensée. plus tard après gis xam nga c' ça qui est dommage parce que après. Euh, c'est dommage c'est-à-dire ñun waruñu di xalaatee noonu cest dire nit looy def rek am na lu nekk ci ginnaaw à un moment donné aussi il faut fair nga def te yàlla rek a tax parce que maire yi ma gis foofu ñu ci bëri xam nañ samay waajur xam nañ sama sama famille xam naa seen famille c'est des c'est vraiment de de braves je le fais vraiment sans rien en retour xam nga ba ma commencé di def ay ay ay live pour les immigrés euh, am na ku ma mosoon bindal commentaire ne xanaa immigré yi dañ lay jox xaalis way demee noonu parce que ñun su suñu xalaat suñu gis-gis. nit ki loo def rek am na lu tax am na lu nekk derrière. alors que yàlla xam na ne après ils ont découvert que sama groupe WhatsApp dañ doon cotiser man damay cotiser ñeneen di cotiser pour ñu jàppale yeneen i nit. te waxuñu ko fenn ci presse bi ni rien j'en parlais dans mes lives pour que nit ñi mun di leen di gën a jàppale ubbi yeneen di groupe pour ñu jàppalante il faut qu'on ait cette culture là d'aider parfois il faut aider. nga def te yàlla rek a tax pourquoi j'ai jàppale la presse pour terminer uniquement pour que ma lance un message pour ñu jàppale ma man dama def lii rek mais nañu jàppale waa koñ bi keneen na ñëw ñeneen nañu ñëw ñu jàppale leen. exactement exactement je donné j'ai donné l'exemple il faut que les autres aussi nañ ñëw ñu jàpp ci. xam nga su ma defee noonu j'ai aussi d'autres des amis immigrés yi nga xam ne nii ñu ngi dëkk ca ca ca kaw ga dañoo tabax ñi ay hôpitaux. ñii ay dispensaires et cetera ñi defar seen seen seen quartier il le faut en fait. en tout le Fouta. vous voyez diaspora bi quand exactement. ñoo gën a investir sur le plan social di tabax ay hôpitaux ay postes de santé ay santé ak yooyu je pense que tamit nekk ci diaspora bi parce que tekkiwul ne critique rek parce que ñi nekk dans la diaspora xam nañ ne c'est des gens très ah waaw parce que tamit xam nga lu tax parce que boo nekkee bitim réew yow déjà xam nga li nga bàyyi sa réew. euh, y a mais boo demee foofu tu vois une autre façon de vivre tu vois d'autres réalités da ngay bëgg loolu aussi sa dëkk xam nga da ngay bëgg loolu aussi sa dëkk donc moo tax da ngay am esprit critique bi c'est normal. waaw Maty Fall était très critique pour le contre ah, surtout vis-à-vis du régime de Macky Sall euh, daan nga leen dal bu baax a baax a baax boobu jamono da ngay def say live di am ay ay dix mille ay vingt mille nit ñi lay seetaan presque euh, ci diggante bi lan moo xew. Euh, en fait dama bëri wax nag xam naa moom di ngeen ma jéem a kii moom bu fa ma bii moom rek may bàyyi rek ma daal di bàyyeeku rek sàllandiku rek expliqué la nag ok Sénégal surtout surtout new look Sénégal back back kande mais en fait euh, parce que 2014 j'étais là xam nga euh, ba président Macky Sall jëlee réew mi on avait beaucoup d'espoir on avait de l'espoir en fait 2014 dama ñibbisi définitivement quand je suis on m'a mis les bâtons dans les roues, c'était très difficile. On a essayé de me... pas de m'humilier, mais de me détruire parce que aussi j'avais des émissions qui dérangeaient. Euh, Hamgaman aussi, les gens peuvent dire Mathieu, elle est grande gueule, mais je dis ce que je pense. Et je fais des émissions pour que aussi, sa bop. Et de manière sincère. Tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de sincérité. Tay, yalla may na ma deug ci ñenn ñi. parce que ba may ñibbisee bañ ma toroxalee bëgg ma toroxal fii ci réew mi j'ai perdu beaucoup d'argent ça a fait beaucoup de obliger j'étais obligée de retourner en Europe bëggu dellu de aban ah, fii laa dëkk fii laay toog ñàkkante ko mais sama famille da ngay toog moment boo xam te moo ma tuloo sa bopp ma dellu Europe pour dem nga liggéeyaat da ngay dem ba fii doo mun a liggéey doo mun a liggéey loo dugg ñu yàq ko donc j'étais obligée de retourner en Europe ma liggéey alors quand je li ma doon gis dama ne am na moment boo xam ne foog ma def ay foog ma wax askan bi li ma dudd fii li ma gis fii foog ma dénoncé ko j'ai une une une amie bu nga xamante ne nii elle est décédée du cancer euh, am na période boo xamante ne dama daan cotiser ak une amie d'enfance suñu groupe bi dañ doon cotiser di ko jàppale pour mu dem di defi ji euh, voilà traitement am et tout ça traitement bu chaire bu cher jëkkëram à un moment mu délaissé ko. mu am ay doom trois enfants mais parcours boobu ñu def ak moom ba mu génn àdduna dama gis lu bari et c'était inadmissible sama première vidéo c'était sur la santé may wax ak fondation Marième fay Sall la première dame je le faisais duma saagawuma avec ak yar mais dama ko wax wax sama xalaat noonu immigré yi di ma contacter ndaxte ku ci nekk am nga li ngay dund fa nga nekk waa Allemagne contacter ma noonu la rek live bi démarré donc c'était sama expérience bi ma am ca réew ma moom laa doon di def ay ak ak nit ñi alors il faut aussi savoir et ça je le sais maintenant le président est mal je pense que ñu bëri wax nañ ko le président du ñëpp à 100 pour cent mais na xoolaat entourage am et c'est ce que je disais il des gens yi nga xam ne tey sax mën nañu dama jege première dame dama jege président alors que dañuy def trafic d'influence ñooñu benn groupe de personnes ont essayé de me de de de de de de me détruire de détruire ma carrière sukkandiku ci état. un groupe de personnes autour du palais ou autour de la présidence. bàyyil ma kii noonu rek parce que tey jii ñoom ci seen biir waa APR xam nañ groupe ba may waxal xam nañ ña may waxal ndax tey jii gis ngeen élection locale yeeg législative nu mu demee am na ñi nga xamante ne dañuy duddee parti bi dañuy euh, euh, jàppalewuñu sax président ñoom seen bopp ak seen carrière politique. ñu nag def genre trafic d'influence mais man jamono boobu je je disais c'est c'est Macky Sall c'est son régime. Mm-hmm. après da nga dem ba comprendre ne du mais loolu yëpp c'est un parcours. ma dem ba ci biir euh, et puis comme je, je dénonçais les choses euh, ñi ànd ak Sonko am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woon ci diaspora bi dañ doon ñëw ci sama live tey ñi ngay gis ñu bari des responsables de Pastef jamono yooyu nekkuñu woon sax Pastef defuñu politique ñooñu dañ doon ñëw di dugg sama live di intervenir. Sonko intervenir deux fois ba trois fois ci sama live ci boppam deuxième intervention Sonko je le dis sans prétention aucune j'ai eu deuxième interview ma def ak Sonko ci sama live il y a beaucoup de personnes ci diaspora bi yi nga xam ne man maa def link ak ak ak El Malick Ndiaye bu Pastef Sénégal pour ñu taxawal ay cellules tey ji ñooñu ñu ci bëri ay responsable lañ Pastef ci diaspora bi ñenn ñi mosuñu def sa politique sonk foofu la xamee njëriñu live Facebook damay wax nii ci Sénégal ngeen dégg. ci yow la ko jàng te moom te moom xam na man xam naa ndaxte mu waroon na ñëw Canada mu li mu am euh, benn live bi noonu benn vidéo en tout cas bu ñu ma yónnee mu ne leen def leen live bi de leen xool live bu Maty Trois Pommes bu fekk pareil ñoom jamono boobu lu tax tey waa Kër Sonko ñu am ñu jël benn benn benn benn avance. ci côté réseaux sociaux ñu ñu ñu ñu ñu am avance par rapport ak euh, waa APR parce que dañu teel a xam njariñ bi te ñoom ñëpp ñu ci bëri ci diaspora bi sama sama live sama plateforme moo doon le rendez-vous ci ñoom ñëpp te duñ ko weddi ñoom Akhenaton nag ñoom ñëpp ba ñuy def seen i page boobu man fii la ma fekk lépp fii la ma fekk donc ñu dem ba ci biir ma commencé nag des amis journalistes moo apple moo dit ci fais vraiment un travail qui bien mais on t'a connu professionnel reste professionnel jusqu'au bout comme sa live yi au début c' était un cri léegi nag rendez-vous la boo jëlee opposition war nga mën a équilibre ah, ma yi ma commencé na di équilibré loolu nag foofu la problème bi commencé ak waa Pastef ba ma njëkkee jël merci far ci ñoom te dañ ma wax ni ma sax ñëwal nga liggéeyal ak ñun ma ne la man duma politique donc noonu ba ma njëkkee jël Cissé selo ak Mame Goor Diazaka fa la saagay tàmbale waa Pastef fa la saaga yi tàmbale ñu ne ma ñooñu bàyyi leen ak tele yi ñun ñun ñu yow la am lii mooy suñu plateforme noonu fu ñu ma commencé di ma saaga responsable yi woo ma ne ma xale yi ñoo lay saaga mais ñun xam nañu li nga li nga ñu jàppale Pastef yenn yi responsable yi nekk ci bi ñoo may woo di ma defal ne ma bàyyil dinañu ko gérer gérer wuñ dara ñu toog ci suuf nag sax guerre froide moo amoon sama diggante ak ñoom te sénégalais yëguñu guerre froide parce que dañoo organiser wu pour pour pour daaneel sama plateforme pour que ñoom ñu nangu nag les rendez-vous du dimanche merci exactement loolu nag guerre froide boobu sénégalais yu bëri yëguñu ko woon ma teeru jàpp sama njàmbur yenn responsabilité am ci diggante bi ma woo leen ne leen 2019 Sonko parewul pour nekk président ma wax leen ko ñenn ñi et j'ai donné mes raisons j'ai argumenté ak ñoom seen parti ba la fay xew lu bëri ma xam ko ca may waxtaan ak ñoom ci suuf ne leen parewu leen pour ngeen mun a diriger réew mi dem leen foog ngeen mbappat ba ci kanam maa ngi wax ci Sénégal te ñoom xam nañu kon xam nga doon du ma hypocrite ñu pare ci loolu nag dossier Adji Sarr bi foofu nag la mbir mi nag tap tap euh, euh, maanaam ça ça a pris une dimension extraordinaire alors que ba mbir mi commencé booy xool j'ai fait plusieurs lives j'ai pris que des gens de Pastef qui parlaient du dossier mais quand j'ai pris l'autre partie euh, maître El Hadj Diouf fa la menace de mort en direct ci biir émission bi dama def capture d'écran jox police police française pour équilibrer rek ñu pare maître El Hadj Diouf encore deux trois responsables moo appelé defal ma ñoom ñu duggaat ci sama live pour tontu maître El Hadj Diouf ma pare jël Françoise Hélène Gaye bu ko daas ah nag foofu nag foofu la nag sama guerre commencé ak ñoom ils ison loo xalaat def nañ ma ko dem nañ ba ci sama liggéeyukaay mu am de collègues yoo xamante ne nii ay sénégalais France fa France. ñu daal di xam ne maa ngi koy door a wax parce que ñoom defe nañ ne yëgu mënu mu demee. ñu lëkkaloo ak samay collègues nasaraan lëkkaloo ak sa yenn yenn ci samay responsable nasaraan. jël samay live commentaires yi et tagge di leen ko yónnee ne man samay samay samay samay collègue di ma traité d'escroc comme ci commentaire Facebook yi ñu indil ma fa benn problème boo xam ne munoo ko. ñoom ñoom ils sont forts mun euh, seen capacité de nuisance waaye nag bul fàtte Kande ne man ma Walfadjri école Walfadjri laa jóge reporter laa ah j'ai gagné combat parce que tubaab boobu ñu jiitaloon. ñu def seen groupe boobu kenn ki déjà licencié nañ ko ña ca des même leen responsable ñu def leen ay ay ay mise à pied de comme sa des sanctions mais ça a duré ça longtemps ça a vraiment duré comprendre nga ay affaires yu graaw yu ñu ma def ci sama liggéeyukaay biir France pour xañ ma sama teraanga toog naa fi arrêt maladie presque deux mois ndax problème boobu parce que dañ dem ba tubaab bi kenn ki dafa dafa dañoo dem ba ëppal ba di ma di ma traité de de chimpanzé et la ay acte de racisme la dem naa ba yenn ONG yi dugg ci mu am ñu may jàppale ñu ubbi enquête ci biir société ba ñu ne ma bul di topp bul di bul bu leen di topp di di xuloo kaa comme def nañ ubbi nañ enquête te yow ñu si bëri yaaleel mag bàyyil ba enquête bi pare xam nga comme man j'ai pas l'habitude euh, ñu may ñu may def may noppi di encaisser un jour j'ai pété les plombs et j'ai fait un malaise là ma toog arrêt maladie deux mois toog naa fi un mois defuma live kon li ma jotee ak ñoom c'est profond dem ba ci sama biir vie privée am na yoo xam ne mënuma ko wax sax fii. donc mbaa dugg sa biiru sëy ñu ma ne loo xalaat man j'ai fait 14 ans de mariage touchons du bois mais man gagné ci combat boobu. may dem ba génn sama di di di liggéey di wàcc di ci mbeddu euh, Normandie fa laa dëkk ñu di ma topp ñenn ñi di ma topp yenn Sénégalais yi di ma filmer di ma photo di ko dugal ci seen live waaye xam nga man ancien reporter laa yow xam nga euh, renseignement généraux bu ñu lay topp da nga koy da nga koy xam am na yoo xamante ne xale yi bon gars yi xamuñu ma en fait c'est des jeunes te xamuñu ma gis nga booy xeex ak nit. xamal ses côté positif ak côté négatif xoolal des failles ñoom ne ils ont voulu ma me la guerre sans vraiment me connaître am na nit koo xamante ne nii ba mu may photo man photo naa ko ba mu may vidéo man vidéo naa ko moo photo boobu mu diffusé man am naa ko moom ba may jël ci arébus bi man jël naa ko ci arébus ba mu taxaw ma am ñu ma ko jox ma porté leen biir Paris ñu def seen whatsapp groupe whatsapp bu ndaw avec des responsables de Pastef maa ngi koy door a wax fii te seen groupe WhatsApp bu ndaw pour man nañ ma nañ ma nañ ma nañ ma agressé physiquement à Paris parce que jamono yooyu maa ngi Paris nañ ma agressé nañ ma dóor biir Paris mu parce que dafa am ñu nekk ci ñoom te ba tey ñoo xam ne ils ont encore du respect pour moi non pas sax ay topp mais des gens parce que ñoom ñëpp à 100 pour cent bonuñu am na ñoo xam ne ñu ngi topp Sonko ah, am na ñuy topp Sonko mais vraiment dañ ko gëm dëggantaan xam nga jàpp nañ ne projet bi projet bu baax la mais yenn yi ànduñu ci. te duñu ci wax ñoo ñoo ma jàppalee dafa am ku ci rocceeku am ku mu waxal ku ku ñëw ba ci man mun a na ma ci def attention ma quitté Paris delluwaat Normandie boobu ci jamono Covid dëgg la woon ma porte plainte ñibbiwaat ba ma liggéeyee nag foofu foofu may liggéey ñu toppat ma fa may liggéey noo ñii ils sont extraordinaires hmm. j'ai porté plainte ma toog jàpp sama ñam dem ba ci biir. parce que plainte dañ dem ba ci biir ki ma porté plainte ndekete kooku il a plusieurs plaintes ak yu demee noonu loolu beneen kaala man maa man maa teggi sama tànk parce que gars yi nee nañ ma tey su bu amee problème ba ñu delloo ko Sénégal te yow yaa ngi liggéeyal immigré yi baaxul ci sa qu'est-ce que ça va t'apporter en fait. sama moo sama rakk la et tout ça et puis je me que l'avenir nous jugera. te yàlla xam na te yàlla dina ma fajal. alors et, et, et surtout et surtout mu allié ak ñan dinaa ñëw ci côté boobu dinaa ñëw ci côté boobu te xoolal euh, gis nga fa ma dëkk am na ñoo xamante ne sax yàgg nañ Pastef woo nañu pourtant des responsables de Pastef il faut le dire aussi woo nañu Bassirou Diomaye fay woo nañu El Malick ne ko Mati mii xam nañu famille bu baax la bokk te te Mati elle ne mérite pas ce que ce qu'on fait wax leen ak boy yi ñu bañ parce que boobu defuñu benn defuñu benn action defuñ dara parce que ñoom jamono boobu fekk mois de mars xam nga on a incendié de des des, des choses ici ñu bëri xof journaliste yi bëri xof daw donc il fale ñu intimider mat yi fallait que ñu noppiloo ma moo tax nag bañ ma oowaatee pour juboo ma ne leen c'est trop tard dama bañ ba tëdd ci suuf. cooki fin rek. non man mosuma waxanteeg Marème fay Sall au téléphone. Thérèse Faye Thérèse Faye on se connaît xam nga tam na laa xamee Thérèse Faye. ok jamono boobu ñu may oowee opposante ñoom waa Bennoo jamono boobu may ñëw di invité ñenn ñi ñuy bañ ndax man opposante la jamono boobu laa fi jël fàttaliku nga amoon na un groupe de jeunes yu doon jël euh, gaal gi pour dem mu am ñu bëri ñu dee ci biir mu am un certain. Euh, Assane Dieng ma jël ko sama live defe naa sax mu jaar na Sénégal il m'a il m'a vraiment il m'a marqué dama pare ma ne ko fu ñu jaar dinaa la jàppale ñu xool ndax dinañ la mën a utal financement ma oo yeneen structures yi kenn faalewu ma ñu boole maag Thérèse Faye ci saa si ak waxtu bi sans mosuma wax ak teg moom maa xam ni rien du mu ne ma on va on va régler le dossier ñu topp ko topp ko ba Assane a son financement mu nekk jàmbaar nag financement la boo xam ne da ngay fay nag da ngay remboursé xam nga may ñu defaral ko beaucoup de xam nga il a son atelier c'est cordonnier xam nga il fait du bon boulot comme quoi c'est possible noonu laa xamante ak Tam Thérèse Faye de de bonnes relations mais c'est vrai seeni seeni euh, y a beaucoup de militants yoo xam ne dañu commencé nag di ñëw nag ci sama live waa réew mi nga xam ne dañu bàyyi woon sama live parce que pour ñun pour ñoom mat yi waa Pastef la ñëw di seetaan sama live et puis nag dañ waxante dëgg man li ma yekk euh, Macky Sall te mosuma koo saaga man du ma saaga du ma wax wax bu ñaaw damay wax li xew argumenté je toujours été courtoise avec les gens donc euh, noonu je me suis dit mais man ak li may doon def ay live depuis des années sur Macky le régime mais man au moins j'ai jamais subi en fait C'est-à-dire, c'est cette torture psychologique, c'est-à-dire cette méchanceté, mais c'est vraiment de la pure méchanceté. ci zaahir ci baatin dañ la bëgg yàq am na yoo xam ne mënu ma ko wax fii non no non am na yoo xam ne mënu ma ko wax donc est-ce que Sonko et ça c'est un message que bi ma koy lancé buy ñëw di remercier waa réseaux sociaux yi bu ñu ñëw parce que saaga yi du neen ñun xam nañ bu baax man ci seen biir laa nekkoon xam naa leen dañ ñuy commandité yenn responsable yi nekk Pastef dañoo am ay faux compte bokk na ci El Malick yi dañoo am ay faux compte en tout cas El Malick am na faux te xam na ne am na xam na ne te waxante wax dañ daan waxtaan da am na faux compte ñoom ci responsable yi dañoo am faux compte ay faux compte kon saaga yi ñoom xam nañ fa fa mu jógee te xam nañ ñu ko organiser te man xam naa déggoo ma de. donc man li ma nguur gi wax dëgg neex yàlla ak li ma xam ci Sonko man Ousou hmm. Bébé hmm. li ma xam ci moom non sérieusement nag laay wax hmm. xam nga man ak lu mun munti demee am na côté boo xam ne duma fa yegg parce que il a une famille il a ses femmes il a ses enfants te sa famille n'a rien demandé moom moo dugg ci politique am na man information yu wér te wóoru Ousou Bébé yu ma am ci moom mu wóor ma ne parewul pour diriger Sénégal Ousmane Sonko te li may wax ni ça n'engage que moi peut-être nag après mais pour l'instant non am na yoo xam ne il faut que cest di dire Sonko l'ennemi de Sonko si Sonko lui-même te su ma waxee moom dina xam fu may waxee Sonko parewul na xoolaat xam nga xam nga parfois mun nga am mun nga am mbébét bu rafet wala yu demee noonu. pare dafa am pare pare pare dafa am fànn yu bëri fi nga mun a pare wee parce que te mun nañ la fal yéene baa ngi fi volonté bi et tout mu am yoo xam ne di nga ko doxalee tu vas di nga di nga di nga di nga yàq espoir yu bari même dans son intérêt. am na loo xam ne foog mu xoolaat ko ci boppam moom bu toogee moom kese ak yàlla mu xoolaat ko ci boppam nit ku nekk nag mun nga dem ba ci biir yàlla soppi la wala yàlla am fu voilà am lum la kii loo xamante ne nii di nga mën a nag jógaat moo tax ma ne pareegul. il na na am lu mu lijjanti moom ci boppam moom ci boppam moom Sonko. l'ennemi de Sonko c'est Sonko lui-même. du ma xuus moom bu moom bu seetaanee live bi dina xam ne xam naa te xam na li ma koy wax. Ousmane Sonko Ousmane Sonko j'ai rien contre lui. Euh, ñaari numéro mi am naa ko maa ko bloqué. man ma pourquoi ma koy woo. pourquoi ma koy woo. Euh, Sonko Sonko <laughs> bu ma wax loo Kande bàyyil noonu rek. Hmm? bàyyil noonu mais je ce que je peux dire. mooy euh, je le dis sincèrement euh, jullit laa li may wax dama koy wax sama ak xulay tala à part politique bi l'ennemi de Sonko c'est Sonko Sonko na xoolaat boppam moom moom. d'accord na Sonko xoolaat boppam gis nañ ne tamit nga soutenir aji Sarr Adji Sarr waxtaan ngeen téléphone ay yoon i yoon euh, gisee woo leen. xam naa ni daal ak Macky Sall lu ñu ko mën a waxal pour l'instant man Macky Sall te politique gu ma ah. nit ku nekk nag fu la neex nekk li may wax ni c'est même pas politique même humainement et sur beaucoup de choses que j'ai vu que j'ai vécu euh, man Macky Sall daal lu Macky moo gën bu Ousmane Sonko et je pèse bien mes mots. loolu ça ça n'engage que toi. ça n'engage que moi. Eh, non j'ai pas je lui j'ai parlé avec elle euh, xam nga. bien sûr on discutait tout sa on parle régulièrement on parle régulièrement. dossier bi nga moo yëngaloon au mois de mars passé waxtaan yow nag yow say say laaj day profond en tout cas je sais que ni par rapport à sa sécurité pas mal de choses euh, soxlawul sax man parce que man su may génn je suis avec des gens c'est-à-dire pour elle mm, jarul pour l'instant ñuy gisante. xam nga elle elle voilà pour ça s'écoute pas mal de choses mais on discute bien sûr on discute. oui on on échange tout. Euh, euh, euh, bien sûr on on on, discute y a, on discute on discute mais euh, on discute. <laughs> mais vous on discute on discute on discute. ah waaw ah te te li ma ci xam sax am na yoo xamante ne sax duma ci waxtaan ak aji aji c'est surtout nekkinam xam nga pas mal de choses en, tant que voilà en tant que grande sœur côté boobu surtout la en fait humainement hmm. humainement dossier bi daal pour man euh, ndax viol am na ou pas ndax viol am na ou pas man je pense il faut que ñu dem ci ci ci ci ci ci ci attukaay ba il faut que ñu dem procès comprendre nga man sama position xam la mooy Sonko ci intérim na dem procès suñ ko tooñee ñëpp xam ne tooñ nañ ko parce que une page tournée. mais est-ce que Sonko dina nangu loolu. te xoolal ne justice fi nekk justice su Macky Sall la. xam nga euh, Sénégal vraiment dëkk bu spécial la parce que gis nga jamono bii ñu tool Jean euh, muy Bourdin c'est un journaliste ñu ñu ñu xoolal ay attouchement sexuel wala harcèlement sexuel rek tu es interdit d'antenne ba nga régler ba pare sa problème. foo mun ti dem ci àdduna bi jamono bi boo nekkee surtout un nom politique ñu tudd la ci viol boo yoroon ndomba tànk da nga koy dindi nga dem uyu ji d'abord ba pare nga setal sa der dooru ñëwaat kon moom dans son intérêt ñu bañ koo waxati ay waxu viol wala waxu aji Sarr moom pour image pour sa carrière politique na dem procès setal deram gis nañ fii euh, Finlande par exemple seen premier ministre ci benn salle la nekkoon di foo di fecc mais dëkk baa ngi laajte mu dem te rek lañ ko filmé noonu mu doon plané. exactement mais mais dëkk bi foofu lañu tollu jamono jii foofu lañ toll mais Sénégal un homme politique ñu accusé le de viol et toi tu es encore là et quand on dit que tu dois aller au procès ñu ne dañuy yëgal dañuy yëgal dañuy yëgal da nga yëgal dëkk bi d'accord na mais mais. bu dee moom la jàpp na ne complot la quand du nangoo tombé ci pièce boobu pour plomber carrière. non allez Kandé. Kandé Kandé Kandé nañu waxante dëgg xam nga lu tax. Euh, Kande tey bu fekkoon ne jamono jamono bu ñu toll jamonoy réseaux sociaux la dara umpaytu c'est pas le même contexte que jamono yi bu dee day ngoyaalu ci li xew ci Macky ci ci Karim Wade wala Khalifa Sall c'est pas pareil c'est pas le même contexte tey jamono ji réseaux sociaux yi ñoo ëpp doole sax euh, euh, télévision yi tey jii da ngay gis réseaux sociaux ñu jël benn mbir mu nekk viral mais la télé en parle les gens en parlent tey jii homme politique du monde entier réseaux sociaux yi gën a ragal kon yow tey procès bu amee il y aura des de Pastef il y aura la presse nationale internationale mais en direct lépp lu xew ci biir dañ koy xam kon foofu ban complot complot bu amee sax foofu loolu di lépp dina leer. la bëgg a daaneel quand justice. bi moom instant bi ak surtout c'est-à-dire que dossier bi pourquoi euh, mënuñ ci war on peut pas dire que voilà parce que justice dafa jeng pas si dossier bi na xamul tax c'est un dossier mu nga xam ne y a eu des yëngal na. mais jamono boobu on parlait du Sénégal partout dans le monde tu penses que le président Macky Sall tu penses que les autorités même magistrats yi pour ñoom ak moom lu muy lu muy xas justice bi dina dinañu ñëw naan ñu ngi tëñëx tëñëx dossier bi rek lem ko noonu rek waaye teg ko de côté il en est pas question te du demee noonu ñun ay xel lañ yor dañuy xalaat. ok d'accord euh, Mati Toura Pomme ak euh, Astou Ndione 2STV maa uh-huh. jooju yaa ko fi sulli woon de. biir ba. est-ce que moi j'ai cité son nom dañuy waxtaan rek. est-ce que seetaan nga est-ce que seetaan nga émission est-ce que seetaan nga émission. xam nga ne fii kenn dofu fii dëkk bi fii bu ma toogee fii ne ndaw si moo doon def émission bu tudd nii ci télé sangam après bu mu fa jógee dafa dem France am na jëkkëru tubaab dem na Belgique dëkk na fa mais loolu doy na comme comme kii comme indice. Kandé hmm? je reviens mu ñëwaat encore ci live bi bu ma def boobu j'ai pas cité de nom j'ai pas cité le nom d'une émission. elle n'est pas la seule journaliste là-bas a eu beaucoup de il y a beaucoup de journalistes là-bas femmes encore une fois j'ai pas cité de nom j'ai pas cité d'émission ni rien du tout te c'est pas cette journaliste qui m'intéressait quand je parlais de ça très sincèrement c'était le responsable et cette cette façon de faire non c'est-à-dire ce que vraiment dommage parce que Sénégal dañu bëgg affaire yu affaire yu kii yooyu comprendre nga quand je parlais de ça c'était pour avertir les journalistes góor ñi nañ jéem a xaritoo ak yéen euh, comme bu ngeen nekkee nouvelle génération on va vous dire que nous c'est l'avenir bu ngeen nekk àndee ak ñun bu ñu attends attends ma ñëw rek attends ma ñëw rek su ma su suñu faloo voilà li ngeen gisee tout ça noonu la ñuy naxee yenn yenn boy yi jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci biir média yi ma leen nag jigéen ñi également te loolu du tey loolu depuis même suñu jamono yenn politique yi dañuy jëm a euh, xam nga euh, essayer de de de sortir avec tel ou tel journaliste qui est connu voilà euh, voilà tu vois ce que je veux dire. exactement donc j'ai dit aux femmes également journalistes faites attention. parce que ñii ils ont leur méthode comme bu fekkee ne El Hadj Ndiaye 2STV yi nanguwul ci teleem ils vont entrer par la par la fenêtre entrer par la fenêtre mooy képp benn booy di ko di ko di ko kii ci suuf. voilà su ko defee ñu am ay privilèges ci télé bi c' est tout ce que je voulais dénoncer en fait c' est à dire cette stratégie là mais moi cette fille ne m'intéresse pas très sincèrement ça m'intéresse pas parce que ça ça existe tout le temps on sait on sait que information bu wér la kaay ma wax la benn affaire kaay ma wax la information bu wér la ya des journalistes yo xam ne xam nañ ko avant man hmm, ma information bu wér la des journalistes connaissent l'information euh, euh, j'ai dit je répète une journaliste de la DGTV hmm. dans mon live j'ai pas cité de nom euh, donc l'information c'est que journaliste bu jigéen hmm. waaw information boobu wér na te des journalistes je termine je termine il y a des gens yoo xamante ne sax am nañu ay preuves il hmm. y a des gens qui allaient même génne yeneen i mbir. kaay ma wax la Sénégal lañ ne gis nga dossier boobu boo ko tegul ci suuf dina am ñoo xamante ne du baax ci ñoom xoolal information bu wér la bu ñu waxantee dëgg. xale bi biiral nañu ko yàq na biiram te. ma terminé ma te ma terminé des gens des journalistes des confrères m'ont appelé. ñoom yëgoon nañ ko bu yàgg léegi nag am na information yoo xam ne. doo bëgg sax di di ci xuus parce que comme je t'ai dit man kooku cette femme là ne m'intéressait pas et que mun na jur leneen te jigéen jigéen la quoi ñu bàyyi noonu daal comprendre moo tax bëgguma sa gën a xuus parce que. mais après dañ la menacé ne la non dañoo yor dossier ci yow boo ci waxul dinañ ko génnee. luy loolu ah bon y' a eu ça y' a tey jii ba tey jii waxatoo ci yaa wala. ah j' j' étais même pas au courant ah y' a eu ça non attends Kande kaay ma non non non kaay yow yaa may ràngati de. quand même. non <laughs> je. les gens si yow on va sortir des dossiers. après bon. Kande Kande Kande Kande xaw ma xaw ndax dangay neexal émission ou pas kaay ma wax la. xoolal waa kaay ma wax la. mbax ki salaatu fatiha. maa ngi giñ ci yàlla mii ma tiim bu fekkoon ne loolu yëg naa ko du ma arrêté j'étais pas au courant man kenn du ma xam nga lu tax. parce que man du ma njaaloo du ma tux du ma naan amul dara loo xam ne tey kenn mënul taxaw nit amul parce que man je suis une personne même en France même milieu bi ma nekk am c'est un milieu c'est-à-dire pourquoi man je suis très proche du Sénégal parce que milieu bi ma nekk c'est du milieu africain pour te dire dama la dëgg rek les gens yi disent que je suis coincée man du ma tux du ma naan du ma dem baar damay liggéey maa ngi sama kër. lan lañ ma mun a génneel comme dossier non yow yow yow noonu li bu ñu paree ñu lijjanti ko ah kon il m'a menacé que ne damay noppi lu ko may ah, ah, eh. waa léegi ma posé la question yow ñooñu bu ñu amoon dara si ma génnewuñ ko bu yàgg koo xam ne ñu ngi lay yàqal sa liggéeyukaay koo xam ne ñu ngi lay topp tey bu doon man defkat laa ñu ngi may topp di ma filmer su ma duggoon ci baar filmer nañ ko dugal nañ ko bu yàgg voilà fu ñu ma fekkoon ak góor wala leneen ak leen génnewuñ ko ils

xam nga parce que Sénégal tamit xam nga ku ci nekk peut-être que am na ñoo xam ne c'est c'est c'est Californie qui les dérange ñenn ñi trouvé nañ une petite faille peut-être euh, bu ñu mën a exploiter euh, mooy waa kër Yamadi tax donc waa kër Oussou Bébé non man pour moi c'est pas une information parce que Californie nit la c'est un citoyen le président quand il est ci diaspora bi il rencontre tous les Sénégalais je ne vois pas pourquoi Californie du ko parce qu'il a fait un live c'est un liveur bokkoon ci ñoom APR Le président, il reçoit tout le monde quand il est euh, euh, euh dans la diaspora. Pourquoi mu a nekk une information. très sincèrement xoolal. xoolal bu ma gisee ay articles sur ça je passe. je lisais même pas les commentaires parce que pour man c'est pas une info. il président mais y a combien de personnes yu président te ñu ngi ànd ak moom tey nañu waxante dëgg. bizarre Maty le Sénégal avance est-ce en fait. Dommage que c'est la dernière dommage que c'est la dernière question parce que euh, tu sais il y a pas que la politique il y a pas que am na yu bëri yu des yu ñu war a yu ñu war a xoolaat te euh, même quand je fais mes lives moo même quand je prends certaines autorités bu ñu paree on en parle parce que je je leur dis tey jii ñun suñu rôle la ñun la presse quand ça va pas ñu wax ko te yàlla rek a tax avec des arguments qu'on puisse informer juste et vrai dina jàppale également le régime mu bañ nekk aussi ay mbirum chantage demee noonu tu vois ce que je Euh, am na lu des am na nag aussi duñ def mais am na lu des mais ñun également ce que j'ai remarqué mooy nañuy gën a am culture liggéey nañuy gën a di jàppalante te yàlla rek a tax xam nga euh, jikko yi aussi voilà et, aussi jikko yi aussi ñu xoolaat jikko yi parce que am na yu bëri yoo xam ne mi ngi xew ñu suñu jamono voilà c'est vrai que soxorte ak yu demee noonu c'est dans la société c'est partout mais na nañu gën a joxante loxo les gens sont devenus certaines personnes aigries xawma lu tax xawma xew soxote bi am ci diggante nit ñi te gis nga plus ñuy ñuy defante yenn yi plus ñu ngi dellu ginnaaw nañu joxante loxo xol yi doon benn follow me sama message. Merci. Alors je remercie tout le monde. Euh, di leen remercier waa Sénégal di remercier bu baax a baax a baax ci seen euh, professionnalisme euh, di wu si waa Sénégal ñi waxoon ne match yi encore un de leurs mensonges de leurs nombreux mensonges que match yi dootu ñëwati Sénégal et cetera et cetera alors que c'était tout simplement gën naa Sénégal boo ma bon quand j'étais là on a essayé de me démolir côté même au milieu milieu business ak yu demee noonu am na yu bëri yoo xam ne j'étais dégoûté xam nga j'étais dégoûté dara téyewu ma woon foofu voilà j'étais c'était c'était de en fait tout simplement donc la preuve je suis que je de monter et j'en par c'est l'occasion également maa ngi monter sama structure bi TV euh, donc voilà c'est une structure bu nga xamante ne day yëngu ci mbirum audiovisuel mais ñun on sera dañuy def focus à 90 pour cent ci Diaspora ok donc aussi on a de nombreux yoo xam ne après dinañ ci gën a ñëw encore une fois maa ngi lancer un message euh, pour waa banlieue gars yi ñu jàppale leen ah sama koñ wax dëgg neex yàlla am na lu ñu def kon bonne volonté yi nañu jàppale jigéen ñi nañu jàppale jeunes yi également si koñ boobu ak ci koñ bi fépp on va dire un partout Sénégal. mbokku mbokku internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dëgg dajee beneen yoon fii ci senego.com ak un autre invité et j'espère qu'il sera comme Mati Trapom jërë ngeen jëf.